ci kàttanu yàlla subhaanahu wa taala ak i mbaaxam lañu amalee jotaay tey ci fii ci Safina FM di fi fase yéene waxtaane fi mbirum ger waxtaanu fàttalente di waxtaanu layante biir ngir delloo séente ko ba mën ko ne tego ci yoon wi nu yonent bi teg sallallahu alayhi wa di yoon wi jubal jàddul dëngul ba daaru salaam di kër yàlla subhaanahu wa mbirum ger nag di loolu ñuy wax ger ci boppam ak nu mu mën a dikkeek ni mu mën a deme pakk la di pakk boo xam ni ku muy faral di fakkasal ci sëg dund amaana boo dul gaaw a yeggi fa jàmm ju matale ja ne di kër buur bi di mawlaana tabaraka wa taala te sax bu lay pakk e, yu nuy demee di la faral di fakkastal pakk yuy demee ni nger te mooy ger nga xam ne obstacle la buy taxaw ci yoon wi jubal ba kër yàlla bu lay faral di fakk yow ci sëg dund fakk yuy faral di ni demee ci kër gi nga xam ni dañ fiy dundee ni boo yeexee yeggit ba yegg ndax yàlla subhanahu wa taala du bàyyi ku ni mel mu yeggee noonu di ko tàbbee noonu ca këram kon lu jara wattu la lu jara bàyyi xel la ci sori ko ak lépp lu xeetoo ci moom ba tax na li xew daal te yàggee xewe ci ñu sellul ñi te nanguwuñoo sellal ca ba àdduna de àdduna ba sunu jonni tey bokk na ci jikko yu bon yi di jikko yi nga xam ne lislaam daf leen a ŋàññ te lii di ger bokk ci bu ñu nafaraatoon tey téere bii di Laxdari limal nañu ñaar fukki bàkkaar ak benn di yoo xam ni euh, ya ñu cay jëkk wax te mu ñu koy jëkk limal ci mboolem yu xaraam yi di leen teel a moytandikuloo ki ñu togg ci moom jëf ñu di ko wax mu kàllaf tàmbalee ko ci fen mbër nga xam ahmed yàl na ko fayal bi sajidi wa mawlaaya di sayid cheikh ahmed tidiane si al maktoum nee na fen day nekk na di ponkalum bakar di moo xam ni mooy bakar bàkkaar yépp moom fen di kilifa sëñ Cheikh radiyallahu anhu wax ni fen nekk na di bàkkaar bi nga xam ni fu ko mag defee rek malaaka xëm te sax bu dul woon ak wala yauduhu xifduhuma nee na kon de fu mag fene planète bi ñu nekk toj ndax bon gu mu bon ak it na mbonam toll fa buur ba di maulana tabaraka wa taala kon ñaar fukki bàkkaar yooyule ak benn yax tër indil nu ko te benn bu ca nekk taxawee taxawaayu gaal goo xam ni kuy yéege sa bopp ca gaal googa walla nga yégée ni ci yaa nga ca biir gaal ga ca benn ca ñoom di benn ca gaal yooya boo ko gaawulee wàcc génn ko bu départ ak yow fii ci dundee ni fi gi ñuy dundee ni ci àdduna day bu départ yow fii te gaawoo ko wàcc waax ba muy téere ji ëllëg mooy jahannama wal iyaazu billah fukkeelu gaal gi ak juróom-ñett nag ak fukkeel ba ak juróom-ñeent ak ñaar fukkeel ba yépp lu bon lii ñuy waxtaane muy mbirum ger fa lañu ne ndax boo ne alkadibu di mbër mu rëy mii di fen dey xaraam na ci mukallaf di ki ñu togg ci moom jëf teg ci ni wal xiibatu te mooy jëw ca gaal ya la bokk ku yëg ni yaa nga ca biir te moo di jëwkat nga gaawal génn gaal googu bala nga dee xam ni waax ba muy koste ji waliyaasu billah moo di jaanama mu ñu la won na miimatu nee na ràmbaaj taxaw di gaal goo xam ni moom it ku yëgee ci sa bopp ne yaa ngi ca biir gaawal génn ko wóorul jaanama mooy doon teeruwaayam di teerukaayam fa muy teere ji wal kibru bàkkaaru rëy taxaw xaraam na ci bépp jaam boo xam ne yaa ngi rëy rëylu ku ko yëg ci sa bopp gaawal génn ko jaanama la jëm ak yow boo ko gaawul a wàcc te dabaatal du wees rëccu du wees tubit du wees li feek dund ak wér ngi fi wal ujbu li wolof di wax aaw bokk ca gaal yooyu war riya ngistalit bokk na ca gaal yooya fa ñuy teere ji baaxul wa sumaatu ndéggtalit taxaw di bakar yoo xam ni boo xam na ci yilay bakar, te bokk na it ca gaal yooya nga xam ne ku ko bu départ ak yow ba teer ji jaanama rek lay teere wal yaasu billah wal xasadu kañaan taxaw di mbërum bàkkaar moom it nga xam ni gaal guy wëyëg ka biir la ndeem wàccul gaal ga génn ko jaanama lay teere jeeg moom wala yaasu billah ku ci yëgee sa bopp gaawal génn ko wal buuxdu mbañeel taxaw bul bañ nit gën fee rawati jullit koo yëg ni bañ nga ko gaawal génn googale gaal jaanama lay teere ji waliyaasu billah wa ruyatul fadli ala al di seet ku gën ki ak ku yées kee mel ni ci ñi gën nga bokk yaay kan atte nga sa bopp atte jaamu yàlla yi subhaanahu wa taala lu ci saw yoon wala boog danga nga baaxle gaawal génn gaal googule ndem yaa ngi ci fa muy teere ji baaxul ndax waaxam mooy waliyaazu billahi jaanama walhamzu wallamzu di waxe cati làmmiñ ak cati bët di piisa kay joxeñee sa cati làmmiñ di wane ni kee lay wax yàlla subhaanahu wa taala jéppina la ba tëkkoo la di tëkkoo ñi noonu ci alquranul karim ca xur wa ca biir jaanama waylun li kulli humadatin lu maza wal abathu fo taxaw mag du fo mag du kaf kuy fokat yaa ngi ci benn ci gaal yooya jaanama la jëm kon gaawal génn ko balaa la mbër mee dee di jëlsi ndax gaal googa ku ca dee fekk kat jaanama mooy doon sa wàccuwaay yal nañu ci musal wa suxriyatu reetaanaate taxaw te moo di lu mel ni ku nekk ci tiis mbaa ku jaaxle nga di ko reetaan mbaa ku nekk ci biir nattu di ku juum day faral di am yàlla nattoo ko mu def bàkkaar boo xam ne bugg ko sax def naka sudul noona mbaa ñu tuumaal ko ci mbir nga yéene ko ko di ko ko reetaane boo doon ne jullit nga xajamal nga sëg njullit te xamal ni ànd nga ak ponkalum bàkkaar di bakkaar boo xam ni gaal la dugguy jëm ak yow jaanama wal iyaazu billah gaawal génn ko te tuubal yàlla subhaanahu wa taala jéggalu sa mbokkum doomu aadama moomu nga doon reetaan te bul ko defati bul ni melawti wa zina njaaloo dikk di mbërum bàkkaar mu ñuy moytuloo mukallaf ndax yi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ku njaaloo daal waxtu wa ngay njaaloo ba ba ngay pare foofa dee wala iyaasu génn ngi ci lislaam te ku njaaloo sax ba yeggal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne na ñett yi day dindi nañ ko ci yow dal na la wàññi nañu fan yi nga naroon dund wàññi nañu tamit lëf ci sa wërsëg leer gi doxoon sa diggante ak yàlla it dagg nañ ko tàppit wala yaasu billah yaa nañ ci yàlla musal wa nazaru idal ajnabiyati wa talazudu bi kalaamiha ñëw jongama jula romb ak taaram di jàmbur ci yow teggil sa xool ci moom te bu sa bët tegoo ci jëmmam ba nar ko fekkee sab xol ci moom muy nekk ay xalaat yoo xam ne yu jaaduwul yoon la yu jàll yoon la walla yu génn yoon la kon teggil sa bët ci moom moytul xool ba nga koy xool seytaane fëkk ca sab xol kon moytul sa bopp ci moom bala nga tàbbeek moom ci gaaluk xaram gu bon gii nar a jëm ak yow jaanama bul bànneexu ci ay kàddoom xaram na la defal rekk limaam sëriñ haadi Touré radiyallahu taala anhu wax ca wala falam moytul ma ndaw su rafet saa yu toogee fi sa wet jógal te gaaw ni bërët daw moytu seytaane ndax seytaane nee ñoo di ak fettem te rus na ca mooy seytaane daanaka dootul sàcc day daane bàyyi sa xelit ci la Ahmed Shawqi wax radiyallahu taala anhu جوايم وحن نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء نظرة وطل خولان تدي نانا بوچ مچول فابتسامة مون موچاي توب بوچ مون توبينك بوطل فسلام دينجن نيو فكلام وخانت أم فلقاء رندفو أم تسي أم وليازو بالله تلتي مجتو باخ lii ñuy waxtaane nag soog a ñëw di feeñe ci fukkeeli gaal gi ak juróom-ñett ak fukkeelu gaal ga ak juróom-ñeent ma ngi cay feeñ ba ca biir ñaar fukkeelu gaal gi déparandoo nag di gaal yi nga xam ne ñoo déparandoo fii ci àddina wuti waax bu bon ba nga xam ni fa la ñuy koste ji te mooy jaanama walla iyaazu billahi la mu ñuy wax wa aklu amwaali nnaasi bi gayri tibi nafsin wal aklu bi shafaati aw bi diin li ko tàmbalee ci li gën a tuuti ci alalu nit ki mu néew mu bari loo ca lekk te lekkee ko ci lu dul teeyuk bakkanam lekk nga sa musiba tooke nga sa bopp te ku rey sa bopp nag te deewoo def nga lu yées xaru te kenn warul tey di nga euh, yóbbu sa bopp ci loo xam ne ak alkaande la walla waliyaasu billah lu am amwaali naasi bi xayri tibi nafsin mooy loolu lekk alalu nit ki moo xam dërëmam la walla lu ko ëpp la ba fa mu yem ñu koy tudde ger nga lekk ko rekk muy nuroog lu neex noonu nga defe ne mucc nga fekk dugal nga sa bopp waliyaasu billah wal aklu bi shafaa ñëwati di mbërum bàkkaar moo xam ne ku ca ne yaa ngi ci benn ci gaal yu bon yooyu nga xam ni fii lañuy ñuy déparé ji teere ji jaanama wal iyaasu billah te moo di nit ñëw jaaxleem yàlla subhaanahu wa taala defal la suturas mën koo ci jaaxleem nga bàyyi fa sutura soosu la yàlla defal subhaanahu wa taala ba nga xam ni mën nga ko ca dimbali te yàlla tax nga bàyyi sutura soosa nga ame ca yiwu yàlla boo ko ci dimbali yiwu yàlla tukke fa moom di ñëw si ci yow jikko ju bon ju ñaaw ji ci yow nga jëfandikoo ko ci kawam ndax jaaxleem nga daldi bëgg nag ci moom mu nekk léegi di gerkat di lu bon ci moom waaye amul pexe nga nangu la mu lay jox di la mu lay gere di xaar keneen ku mel ni moom dikk moom it ger la nga nangu di xaar keneen di koy dajale noonu di koy dajale noonu di koy dajale noonu ba jàpp ni bari na oomal nga duun le nga nar koo dundee nar cee dundalee ji sa njaboot rey nga sa bopp reyaale nga sa njabootit naan nga deret naan loon nga sa njabootit deret lor nga nit ni yow gaañ nga nit ni yow boo jàppee ni mucc nga yit xamal ni rekk wala yaasu billah muccagoo mucculoo mukk dugg nga keroog te boo jàppoon ni tamit am nga chance it amatoo chance chance ba dem na tey tamit doo nekk mukk kuy jaruñu ëllëg ca kanamu buur bi di Maulana tabaraka wa taala ndéem tuubuloo ndéem génnoo ca ba set ca wecc su ko defee lan moo la cay fekki li tubaab di wax tu auras un accueil déméritant et très inhumain ndax lan tu tomberas sans doute dans la gueule du loup ndax ku dugal sa bopp ci gattax mbaam yey ko te sax ñàkk mucc nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax te lu mu wax yàlla subhanahu wa taala dëggal ko moo ni walladi nafsi bi yadihi laa yaslimu abdun xatta yaslima annaasu min qalbihi wa lisaanihi wa yadihi nee na maa koy giñ ci buur bi nga xam ne sama bakkan man muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma nga ca loxoom ni jaam bii day muccul te mooy jaam bi nga xam ni jaam ni yow walla jaam yi ni yow muccuñu ci sa ku ko xool am nga ñu ci ëmbal safaan muccuñu ci saw làmmin li ngay wax muy tukkee ci sa làmmiñ di dal ci daru nit ñi jekkul rafetul muccee ñu ci sa loxo tamit yaa ngi ciy jëf jëf yoo xam ne dafay lor jaam bi dafay lor nit ki te du nekk di loo xam ne dafay tey ca bàkkanam ba tax na alalu nger te mooy ñu ger la nga nangu ko jël ko yóbbu ni yaa ngi koy dunde ji dundal ci sa njaboot boo ca lekkee jiitelee ko sab koll jàppee ko ni dund nga dundal nga sa njaboot dee nga keroog royaale sa njaboot walla iyaazu billah bu melee ni lu neex teyit ëllëg dina ñëw te njaal beenug toroxte nag góor ga noon dafay niroog aajo ju faju te kuy dunde riba di loolu ñuy tudde nger ca lay bokk mujj ga mujjëm mooy xëy torox rekk doo dekki wàlla it jëmmi doomu aadama yowmal qiyaamati jëmmi mbaam ngay dekkee ji ëllëg te alalu nger ak yu ni mel ci riba la bokk te fa lañ koy àttee ji góor gi Maxtaar Sekk ca Mbooro yal ko yàlla dolli leere kii njëggale kii yërmandeem waxoon na ni kollu riba dey nee na jarte kenn ndax boo ca melee ni ku rafet nii rek it nee na taaru bu mboq rekk la benn ñu futti ko ba mu ni dung sànni ca taal ba di wëlbatee ko wëlbatiwaat mbaa futti ko ba mu ni dung soob ko ci gën tiim ko kii kuur wal jaasu billah te benn ci seddul kon nger baaxul ku koy jëf bàyyi ko képp kuñ koy defit walla ngay xaar jox la ko nga nangu ko génn ca dee ca wóorul maam cheikh alxaaji abdul aziz radiallahu taala anhu bokk na ca lam woy sëñ Babacar si radiallahu taala anhu magam ja naan kaan yow rekk yaa woote fii ba ñépp jof si fi yow ak seeni koom yafa ñoom te sàkkuwoo ku la ger ger musiba la yal nañ ci yàlla subhanahu wa taala musal ba faw ci daraja yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ko defee rek fàttalee ngoog layante biir ngoog yàlla ci mbaaxam yàlla ñu defal dégg ak topp te may nu nu jëriñoo lépp luy njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu